sant yàlla bi nga xamante ne ni te yàlla def nañu ñu bokk journée bi ak ay sëriñu daara sëriñu daara wax dëgg yàlla ci commune bu lat Latmingué yàlla def ñu yendoog ñoom julli wandoog ñoom léegi war a jëflanteeg ñoom aussi ci loo xamante ne ni lépp ci wàllu lu jëm ci diine la ak lu wàllu dimbalante ci loolu nag la euh, remercier le docteur Macoumba Diouf vraiment à travers le geste qu'il a fait mais aussi ak euh, gis bi muy gis chaque jour rek les vision du président Macky Sall je pense que mun nañ ko tënk rek ci trois points benn bi moom mooy d'abord vision président par rapport ak décentralisation bi nga xamante ne nii tey moom moo am ci les collectivité local mu jëmmal leen maires yi wala jël ay initiatives dans leur commune te yaakaar naa moom aussi nekk na ci koo xamante ne nii mu ngi ciy jël wàllam je pense que geste bi aussi signifié na ko deuxième point bi mooy aussi ku ne xam na ne gannaaw bi maladie bi ñëwee Sénégal le président am na ay décision yu mu jël décision yooyu nag bi mu ko jëlee ba pare moom daw na ñëw ci commune am pour commencer tàmbali ci loolu te xam na ne président dina def y a pas mal de jours ku ne xam na ne jëflante na aussi ak imam yi chef de village yi ci ay gel ak une journée de sensibilisation boo xam ne ni jël na ay jeunes aussi dugal leen partout dans la commune ñu sensibiliser nit ñi d'abord ci feebar bi mais sensibiliser leen aussi ci les modes de précaution à tey aussi mu xalaat ne barke démb la président naat wax ci daara yi nañu téye ndongo yi mais ku téye ndongo aussi am loo dimbalee ka ko téye donc ça aussi il a eu tey mu jël euh, daara bu ci nekk mu jox la je pense que cent kilos de riz dix litres diwlin ak yenn euh, bagage yi nga xamante ne ni moom mooy ànd ci li nga xamante ne ni moom mooy xale yi ci cet gi waaye aussi ci dundin bi loolu nag ku ko xam it xam ne président mu ngi ci parce que wax na ko te je pense que du yàgg dara dina ci ñow waaye nag comme aussi daara yi téye nañ leen au niveau de la commune de Latmingué je pense que xaar boobu dina doon métti ci sëriñu daara yi moo tax te yàlla def ñu mobiliser wu ñu ñëpp teeral leen fii teeru leen tatagal leen mais aussi bu ñuy ñibbi ñu jox leen ku ci ne loo xamante ne ni au moins même bu fekkee c'est une dizaine de jour di nga ci mën a téye xale yi ci biir yi en attendant aussi leneen ñëw bu leneen ñëwagul it bu xawee yéexit moom mu defaat beneen geste pour accompagner leen je pense en somme loolu moo nekkoon li nga xamante ne nii tey moo ñu fi regroupé. ngi sant di gërëm itam monsieur le maire ci geste bii mbokk ci benn ci ay gestam c'est pas la première fois mu koy def te yaakaar nañu itam du doon bu mujj incha allah comme ni ko waxee lépp loo xam ne lii lu jëm ci ndimbal la jëm ci dëkk beeg commune beeg lépp mosu cee jóg mu ngi ci guddi ak bëccëg wan yàlla na yàlla jàppale ko su fekkee nag def na geste bi jëmale ko ci daara yi def na ko fi mu ko war a def. ndax ku ci nekk ci ñun ñi newul ci daara xëy na am nga beneen moyen boo xam ne mun nga ko dundalee sa njaboot waaye sëriñ daara boo xam ne dañ ko booleel ay njabootu jàmbur amul benn benn benn ndimbal surtout ñi nga xam ne ñoo fare ci kaw gi nii bu buñ amee ñu leen jàppalee comme nii dañ koy sant bu baax gërëm ko ñaanal ko yàlla eh, alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant yàlla nag bu baax ci liggéey bi nga xam ne docteur Macoumba def na ko te aussi mu yàgg koo def loolu nag nekkul ne tey rek la ko def def na ko defaat ko defaat ko ci kuréelu sëriñ daara yi ak ci imaam yi ak ci ñëpp euh, gën naa koo labbali aussi bi lu demee ni am ci amee ci réew mi nga xam ne ñëpp soxla nañ lu mel nii waaye mu jaaree ko fa nga xam ne moom mooy buntu ba te moom buntu boobu aussi mooy buntu bi gën pour di mën ko jaare ci lii ñu jublu ndaxte yéen ñëpp xam ngeen mbiru daara nu muy doxee ak nu mu mel ndax daara ay doomu jaabur kese lañ fay dajale te suñ fa dajee aussi daanaka laaj na ndimbal yu bëree bari pour daara bi mën a avancer jëm ci kanam te loolu mosu si jóg di dimbale daara yi ba tax na bi lii amee mu jël décision dindi ci moyen boppam dindi alal yu bari jënd ay ceeb jënd ay diw ak yu demee noonu pour fas yéene séddale ko mboole seen sëriñu daara yi nekk si commune Latmingué bi yëpp muy 25 daara yi nekk si biir commune bi loolu nag vraiment sess bu rafet la.